madame la présidente monsieur les ministres maa ngi leen di nuyu di nuyu seen collaborateurs yi nuyu honorable député yi fi nekk yépp monsieur le ministre maa ngi lay félicité euh, ndax defe naa ne tey président Macky Sall bula la dénkee département bu am solo ci àdduna muy santé confiance mënul weesu loolu ndax wolof njaay def naan bala nga ne naam danga fay nekk ndax wér mooy lépp kon nag yàlla nañu yàlla may wér ñun ñëpp euh, monsieur le ministre defe naa ne ci commission finance maa ngi doon wax doléance hôpitalu Thiaroye hôpitalu pikin bi nga xam ne niveau 3 la doon wax ci subvention bi nga xamante ne moom la ñu alloué l'hôpital de Thiar de Pikine waaye dégg naa sama collègue léegi wax que ne montant bi relevé nañ ko à cinq cent millions waaye nag xeebuñu ko. di ñaan rek ñu gën ko yokk parce que euh, hôpital yu ëpp euh, daraja Pikine am na wala ñu yem te ñoom defe naa ne egg nañu près de un milliard kon nag suñ subvention monsieur le ministre des finances ñu ngi koy xaar ci un milliard parce que Pikine war na ko am parce que population Pikine na ko soxla bu loolu weesoo ñu ngi lay fàttali que ne couverture maladie universelle ca hôpitalu Pikine soxla nañu pour nga jàppale ñu ci det yooyu monsieur le ministre ñu ngi sant le président de la république comme li ñuy wax macha allah que ne jëf rek moo am solo ndax sénégalais lambda yi yi daan faju bu njëkk mu ñu aman jafe-jafe léegi defe naa ne soulagé wu nañu bu baax ndax tey bu ñuy wax le plan Sénégal émergent mu nekk euh, sur cinq ci 35 ans Ah, defe naa ne kon da ngeen di am lu ngeen di def ngeen ñu leen di dolli ngeen di def ba kerek ñuy atteindre objectif bi ci lu ngeen def loo xamante ne nit ñi gis nañu ko que politique sociale di président Macky Sall ci santé kenn nattable wu ko wax nañ fi couverture maladie universelle wax nañ ci centre d'hémodialyse yi nga xam ne bi ngeen di ñëw ñaar rek moo amoon muy dakaar ak Saint-Louis ngeen renforcer centre d'hémodialyse yi fépp muy permettre ñi nga xam ne tey dañoo am problème pour def dialyse ñu mën a gën a jege seeni gox ba pare nag def ko gratuite loolu dafa am solo pour sénégalais xam ko ndax ñi ko doon fay ay xas bu bari lañ ci doon def tey ñu mën leen koo defal ci seeni askan mu jege leen ba pare duñu fay dara euh, gis nañu octobre rose monsieur le ministre lu am solo la un milliard ngeen jël ko def ko ci octobre rose jagleel ko jigéen ñi nga xam ne tey dañoo am problème de cancer du sein wala cancer de l'utérus kon monsieur le ministre jëf monsieur le président de la république gratuité de la césarienne gratuité de de la dialyse wax naa ko en soins de l'enfant de zéro à cinq ans plan Sésame pour ñi nga xam ne am nañ 60 ans defe naa ne loolu lépp pour yombal faj bi ci li nga xamante ne mooy le le troisième age plan ab carte d'égalité euh, de chance réalisation président Macky Sall defe naa ne kenn du ko nattable monsieur le ministre l'objectif du président Macky Sall demeure sa forte volonté d'inclusion sociale ñëpp xam nañ président Macky Sall cër bi nga xam ne jox na ko sur le plan si plan Sénégal émergent le capital humain mu nekk lu am solo gis na si capital humain boobu mu jël ci ay directives jël ci jël ci le plan de modernisation de l'administration sénégalaise monsieur le ministre dama bëgg nga jël ce temps nga dem nga wàcc sur le terrain nga sol sa blouson walla nga sol sa chemise nga dem ci bureau yi heure xëy dafa am heure parce que tey jii li nga xamante ne moom lañ constaté médecin yi man de je n'ai rien waaye ne dama bëgg ñuy fonk seen heure de travail feebar dafa metti nit ñi dañuy jóge seen i kër am seen i rendez ñu jox leen huit bala ñu leen recevoir onze heures tegawul ci yoon parce que li ko waral mooy ñu ci bëri dañu am ay clinique bala nga privé na nga public parce que defe naa ne tey président bu jëloon ay milliards def ko ci santé teg la ci santé te administration bi duñu respecter heure de travail yi sa liggéey dafay sooxe kon nag monsieur le ministre jëlee say responsabilité aaye wuñu ñuy ibbi seen clinique am nañ le weekend am nañu heure de descente bu ñu paree ñu dem seeni i clinique waaye yor ay malaat ñu toog ci hôpitaux yi huit heures ba midi nga def le tour des cliniques doog a ñëw monsieur le ministre jëlee say mesure ci loolu je vous remercie madame la présidente